mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, ni ngeen ko déggee kon ci bande annonce bi euh, ni ki euh, tey ñu fas yéene kon ànd ak yéen ci seen émission spéciale bi ñu jagleel xeexum mbas mi sur la 93 point 0 Afia FM ci dimanche gi nag ñu amee mbégte dalal fii ki nga xamante ne moom mooy professeur bi jaxate di sociologue su ko defee itam xam naa ni laata ñuy xuusa ci waxtaan wi dañ koy jox kàddu gi d'abord mu yokk askan wi professeur asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. ñu bàyyi la aussi nga yokk euh, askan wi. waaw maa ngi ziar bu baax euh, waa Afia FM euh, di rafetlu liggéey bi nga xam ne yéen a ngi koy liggéey fii ci gox bi di ko liggéey ci réew mi yëpp. di nuyu aussi seen ay auditeurs di nuyu mbokki Grand Yoff bi yëpp di nuyu waa Sénégal yëpp di ñaan yàlla mu def fi jàmm def fi sutura def fi dal. di ñaan yàlla tamit mbas bi nga xam ni moom moo wàcc ci àdduna bi wàcc ci Sénégal yàlla jëlee ko fi nu mu gën a gaawee eh, ñu dellu ci li ñu nekkoon ci dal te nag ñu def ci jàngat yi nga xam ni moom la ñu ci war def ba nga xam ni bu ñu dellu bu ñu yàlla delloo fa ñu nekkoon. waaw sociologue mooy ki nga xam ni eh, dafay gëstu eh, li nga xam ni moom mooy xew ci pénc mi. parce que xam nga yenn saa yi nga bëgg doxal benn affaire ci pénc mi boo comprendrewul pénc mi ñoom nu ñuy xalaatee ak seen jubluwaay ak seen ay bëgg-bëgg loolu nga bëgg a doxal du mën a am dama lay jox benn exemple. dans les années 1980 dafa amoon euh, Casamance benn structure bu ñu fa tegoon bu tudd SOMIVAC muy société pour la mise en valeur de la Casamance ñoom ñu ñëw ñu ni dañu bëgg fexe ba Casamance comme dañuy béy euh, dañuy béy ceeb dañu bëgg ceeb bi ñuy béy mu gën a mu gën a bëri ba nga xam ni Sénégal gi yëpp dinañu mën a dundee ceeb bi nga xam ni mi ngi jógee Casamance ñu ni kon loolu naka la def ñu ni nañ fa yóbbu ay tracteur nañ fa yóbbu ay moissonneuse nañ fa yóbbu ay batteuse nañu nañu mécaniser production bi ba nga xam ni euh, ñoom li ñuy li ñuy jiw dafay gën a bëri alors ñu daal di jël ay ay tracteurs yu bëri jël moissonneuses yu bëri ay ay ay engins yu bari yóbbul ko joolaay ni leen am leen ngeen bay bu ko defee li ngeen doon bay nga xam ni tuuti la doon doon léegi di mën a gay lu bëree bari bari mais biñ ko yóbboo at bañ ko fa ñu def ak ñaari at ya ca topp joolaa yi lañ doon produire dafa wàññeeku ñu ni mais ñun comprendre ñu ñii ñi ngi doon ñi ngi doon def masalan fukki kilo ñu indil leen ay tracteur indil leen ay moissonneuse ñu def juróomi kilo donc am na problème parce que ñun dañu yaakaaroon ni bu ñu leen ko indilee dinañu defar 100 kilos mais léegi ñoom li ñu doon defar sax dafa wàññeeku kon dafa laajoon balaa ñu fay indi euh, euh, moissonneuses yooyu batteuses yooyu yëpp ak tracteurs yi ñu xool société joolaa naka la organiser woo naka lay consommer parce que ki nga xam ni dafa gëm aadaam ak cosaanam gëm ni moom kajandoo lay baye nga xëy suba indil ko tracteur moom bu laalee tracteur bi rek dafay mel ni dafa weddi li maamam doon def donc sociologue moom mooy gëstu moom mooy gëstu pénc mi Euh, xool pénc mi naka la tegoo naka la rëddoo naka la jubluwoo lan mooy ay bëgg-bëggam lan mooy aadaam lan mooy cosaanam loolu yëpp da koy jàngat pour mën a xam yan yoon la ñu mën a jaar ak pénc mi ba nga xam ni bu fekkee dañu bëgg a ay acte luy jëmale kanam wala xeex ak yu mel ni mbas mi ban yoon la ñu mën a jaar ba nga xam ni loolu dina gën gaaw dina gën a mën a fekk nit ñi ñoom ci seen bopp dañ ciy gis seen bopp dañ ciy dugal seen loxo yow mii sociologue bi doo def dara dañ ciy ànd ak ñoom rek ñu ànd gungewoo bokk paa bi